Issakha Diop ministre euh, en charge de la prévention et de la gestion des inondations waaw tey ñu ngi fii ci réunion euh, comité national de gestion des inondations nga xam ne sunu nattaango le ministre de l'eau et de l'assainissement moo ko convoqué ñu oo acteurs yëpp yi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu xeex mbënd li ñu mën a waxagum ci ci bilan bi mooy ren ñëpp xam nañ ne gestion hivernage bi nekk na une très grande réussite ndax buñ ko comparé at yu ko jiitu da daan am plan am yenn saa yi sax ay nit ñu faatu wala am ñu bari ñuy yóbbu ci école yi euh, wala ñuy génn seen i kër ren nag gis nañ ne situation boobu noonu yàlla dimbale nañu ba dunduñu ko donc loolu nag bu amee méritu déjà président de la république la moom moo joxe volonté politique bi mais aussi implication monsieur le premier ministre nga xam ne semaine bu nekk doon na woote ay ndaje boo xam ne nii acteurs yëpp yiy liggéey ci wàllu xeex mën dañ ci doon euh, ànd di ci liggéeyandoo ba loolu moo nu dimbalee ñu am résultat yi service yi nga xam ne yëpp mooy service su état bi muy DPG yi muy ONAS muy la brigade nationale des sapeurs pompiers ak service su état bi yëpp dañoo boole seen doole lëkkaloo tey boo loolu mënu mun a may euh, lii nga xam ne am nañ ko comme résultat positif mu nekk un succès nga xam ne malgré pluviométrie bu am solo bi mooy taw yu am solo yi ñu am yàlla dimbali nañu ba situation yu ñu daan dundu at yu weesu ren dunduñu ko c'est parce que dañoo teel a jóg àndandoo boole doole yi ñun ñëpp ensemble ñu fexe ba relever le le défi mooy def hivernage boo xam ne globalement ci jàmm lañ ko defee. waaw loolu aussi bokk na ci li li ñuy jàppale mooy ren euh, dañu teel a jóg le 17 janvier 2023 la ñu campagne nationale de prévention tuddee ko waajal nawet. boo xam ne ñu ngi ko lancé fële ci Touba mais mu yóbbu ñu aussi ci région yu bëri lu tolloog fukki région yóbbu ñu ci lu tolloog 103 communes. yoo xam ne may nañu ñu dem xool ndax xeex mbënd dañu jàpp ne implication communauté yi daf ci am solo mooy ñi koy dund dañu war a jug taxaw nekk en première ligne collectivité territoriale yi aussi mooy bokk moomeel yi ñoom aussi ñu gunge leen ñu taxawal ay plan de contingence kenn ku ci nekk waajal ci sa budget mun a def programmation def planification xam ne bu dee commune nga boo xam ne danga am vulnérabilité nga teel a sóoraale la nga ci war a état bi nag continuer li muy def ndax président de la république tey lii nga xam ne am nañ ko comme résultat mérite bi moom la ndax bi mu ñëwee conseil présidentiel bi mu njëkk def inondation la ko consacré def ci programme décennal de gestion des inondations def ci koom-koom bu bëri moo tax tey bari na ay gox yu bëri yoo xam ne tey bu doon investissement boobu amu fi ñooñu déplacé wu nañu te lool moo indi résultat bi tey nga xam ne taw na taw bu bëri ren waaye gis nañ ne situation bi amul fenn foo xam ne ni jéggi na fa dayoo si si si réew mi foo xam ne dañuy wax ay limu ñoo xam ne faatu nañu te yeneen dëkk yi loolu moo fay am des milliers de morts wala ay centaines de morts yàlla dimbale nañu si beneen bi aussi école yi nga xam ne dañ ko daan occupé di si dugal ay nit yàlla dimbale nañu à l'heure de la rentrée amul benn école boo xam ne ni am na ñu fa nekkoon maanaam ba mënuñu mënuñu ubbi école bi donc yooyu yëpp mun nañ jàpp ne bilan bu positif la boo xam ne mérite bi service état bi yëpp la donc muy président de la république muy le premier ministre nga xam ne semaine bu nekk daf doon woote ndaje boo xam ne nii moom moo koy présider boppam tàmbali bi dès le mois juin de mars dafa woote comité national de gestion des inondations bii nga xam ne tey ci la acteur yëpp di dajaloo ñu mun a définir très tôt stratégie bi nga xam ne ni moom la ñu war a mën a mettre en place pour mun a am hivernage boo xam ne dañ ko def dans la tranquillité def ko aussi sans grande difficulté donc moom aussi ñu féliciter ko remercier ko remercier l'ensemble des service de l'État muy muy waa muy waa waa direction de la prévention et de la gestion des inondations seen implication direction général de l'office national du du d'assainissement Sénégal muy ONAS waa brigade nationale des sapeurs pompiers waa ADEM ak service service su état yëpp nga xam ne dañoo boole seen doole dans une euh, parfaite synergie euh, manko pour tey moonu mun a may résultat positif bi nga xam ne am nañ ko. waaw perspective bi pour 2024 mooy continuer liggéey bi nga xam moom la def beneen bi teel a jóg. ndax li ñu may résultat bi ren bokk na ci teel a jóg teel a xam problème yi teel a anticiper ci solution yi te gis nañ ne am na résultat bu ñu jural ndax mois de janvier 2023 fekk nañu jóg le 17 janvier la ñu lancé waajal nawet donc ren aussi fasciné nañu waat très tôt dans l' année ñu lancé wat liggéey boobu ànd ko ak service yëpp beneen bi aussi travaux yi nga xam ne nii état bi mu ngi koy def ci gox yeeg goxaat ndax ñëpp xam nañ ne zone yu bëri yi nga xam ne inondation daf leen doon sonal yu mel ni Kër Massar ren nawet na ba jeex kenn déggu fa coow c'est parce que président de la république dafa am investissement bu mu fa def jëm ci projet ci phase d'urgence bi mu am lu bëri lu mu régler si si zone boobu beneen bi nga xam ne aussi beneen phase bi nga xam ne ni ñu ngi koy entame ñu gëm ne dina gën a mën a yokk ay ay ay résultats donc perspective yi mooy teel a jóg continuer cette euh, euh, synergie de des des services de l'État ànd ko aussi ak askan wi ñoom aussi ñu jóg taxaw ànd ak état bi xam ne etat bi ñoom lay liggéeyal collectivités yi aussi collaborer ak état par rapport à la politique définie par le chef de l'État ñoom aussi ñu ñëw gunge état ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def pour xeex mbënd te gëm nañ ne résultat yu ñu am ren suñu maintenir la même dynamique dinañ am résultat yu ko gën déwén ndax ren li mu taw taw taw li taw bi di bëri bëri yëpp amul fenn foo xam ne nii am na situation bu jéggi dayo donc loolu la ñu fas yéene ñu xam nag ñun nekk mooy taw day am taw dina bëri voilà léegi li des nag mooy nu ñuy mun a waajalee loolu ba bu ñëwee du métti voilà. merci beaucoup nous sommes aujourd'hui à cette réunion du comité national de gestion des inondations convoqué par le ministre de l'eau et de l'assainissement monsieur Serigne bay Thiam pour faire le bilan de la gestion des des inondations pour pour cette année 2023 donc ce que nous pouvons retenir c'est globalement un succès parce que malgré la forte pluviométrie Euh, on, a eu une situation globalement sous contrôle au, au, au, niveau national. Donc pour la première fois depuis de nombreuses années, le plan Orsec n'a pas été déclenché. On n'a aussi à vivre certaines situations que l'on avait l'habitude de, de, vivre pendant l'hivernage, comme le déplacement de beaucoup de population ou le, le relogement dans certains établissements scolaires ou dans des camps de fortune. pour dire simplement que euh, la gestion des inondations au titre de l'année 2023 a été un grand succès. Cela, nous le devons, euh, je l'ai au ministre de l'eau et de l'assainissement, mais aussi à l'ensemble des services de l'État mais déjà euh, une campagne pré euh, de prévention. Donc dès le 17 janvier, euh, nous avons à Touba la campagne nationale de prévention des, des inondations qui nous a amené euh, euh, partout dans le pays, 10, 10, régions visitées, 103 communes visitées, qui nous a permis de pouvoir à temps, pouvoir euh, anticiper et de prendre les mesures idoines pour vraiment parer à, à, à toute situation euh, exceptionnelle. Bon, maintenir déjà une, cette, cette dynamique Comme aujourd'hui, nous, nous, faisons le bilan, donc les perspectives seront euh, ouvertes avec l'ensemble des, des, des, acteurs et, et, nous prendre aussi euh, très tôt euh, dans, la, dans, dans, la prévention et, et, et la gestion, comme nous, avons, comme nous avons eu à le faire l'année dernière. Donc déjà, dans la mobilisation des communautés, dans l'accompagnement des collectivités euh, territoriales, maillon très important de la lutte contre les inondations, les accompagner vers l'élaboration de plans de contingence, donc dans la planification à cette période pour que toutes puissent prévoir dans leur budget, comme ça se fait ailleurs, euh, des montants assez importants destinés à la lutte contre les, inondations, parce que dans beaucoup de pays, la gestion des inondations se fait à l'échelle des territoires. L'État supervise, mais la gestion, les collectivités sont généralement en première ligne. donc euh, pour aussi le suivi et euh, des projets et programmes de l'État le président de la République son excellence Macky Sall a marqué sa volonté politique dès 2012 le premier conseil présidentiel le 19 septembre 2012 il a euh, consacré ce premier conseil présidentiel à la gestion des inondations à l'issue du conseil un programme décennal de gestion des inondations sur 10 ans qui a produit tous ces résultats-là. On ne parle plus beaucoup de Gounas, on ne parle plus d'Alifor. C'est parce que simplement, il y a eu beaucoup d'investissements de l'État qui ont permis d'avoir ces, résultats positifs qui ont été constatés cette année. c'est le, fruit de l'engagement de son Excellence le Président Macky pour lutter contre les inondations. le radar, c'est dans le cadre du PGIS, pour, accompagner l'ANASIM, pour leur permettre de pouvoir prévision, parce que dans la gestion des inondations, la prévision est importante. Ça nous permet d'avoir pour pouvoir faire face à ces événements, parce que nous climatique avec des événements extrêmes qui se manifestent par, très souvent par des pluies exceptionnelles, comme nous avons connu cette année à, à Mbao, 128 mm le 24 juillet 2022, euh, sans déclenchement a du travail en